firi rek baaj. bilaa walaay bu xaar dafa ngeen ko seqal de. dafa mbër day xaar. day nëgëndiku ba jamono neex sabu bu jamono neexee du ko fekke bu ko fa aada fekkee mu xam ne lépp dëgg la. waa parcelle la la mais man baay parcelle mooy loolu. benn mbër laa fa am muy Modou Lo muy Modou Lo mais Ada Fass man ak moom ñoo fawandoo moom rek Ada Fass. laa di ko ñaanal ndax. nu ñuy ñëwee jàpp ko jàngal ko bëre daan ko jël bu yomb dem ñibbi. ba dimanche. bu dimanche ak jàmm incha allah lépp dina macha allah xale bi liggéey na Balde entraîné na antey wax ak moom noonu anti mi ne ko nekk ndakaaru xaw ma ba tey mu nga foo la déet sax ndax léegi Fass ndakaaru moo am waaye Ada faas mii daal liggéey na waa loo ci mën a dégg mooy liggéey na est-ce que nag xam na bés bi muy bëre dimanche loolu mooy question bi boo xoolee waa Fass yëpp a ngi ci ginnaawam ndax tey terrain sànce ni mu mel nii ndaysaan loolu loxo yi lay yee ci wàllum box yow moom defe naa lii xam nga ko sol ay gants di dóorante waaw yii mbër da ko daan def pour yee ay loxoom ah Fass ak lamb daa yàgg ñu ngay tekki gants ya c'est que li ma li ma li may tiit ci maanaam Ada Fass il mu xam ne moom combat bu mag lay bëri dimanche et sax bi da ci am solo te nii ma gis nii ñuy demee nii waaw combat làmb day toll foo xam ne Baldé da ngay da ngay ànd ak dal da ciy baax waaw dal gi da ciy baax. mu mel ni ba tey kon ñu ngi ci Fass defe naa kii nga xam ne moom mooy Modou fay ñu naan ko Modou Roubek ñëpp xam ko ci làmb mu bokk ci ñu jege aada Fass Modou li am tey aada ñëw na presse bi ñëw nañ fecc na sadoona def na lépp def na ay boxam ak yëpp am ay séance wax des après mu dem sàqi dem presse bi tamit gedd dem loolu loo ci mën a leeral yow mi nga xam ne bokk nga ci ñu ko wër waaw baakor onze billahi mina shaytan rajim ginnaaw ñuy sant yàlla bi yëpp lu ñu fi teel a ñëw maanaam tey làmb moo demee noo xam ne ku nekk ak sa bës bës bi ñor na booy bi te gis nañ lu fi xewoon si mbooloo dañoo benn instant mënuñu canaliser ñëpp open presse bi bëgguñu ko woon nii parce que tax bëgguñu ko woon nii mbër am na temps pour wax ak yi am na temps pour wax ak xelu gaa yëpp mais malheureusement suñu borom moo nanguwul di di marché parce que am na kuréel yoo xam ne journaliste dañ xaw a innové si yenn kuréel am na yoo xam ne tey bu ma yóbboon benn Babacar munoon na ma may loolu wala keneen bu nee mun nañ gisee neneen mais bu ma nee dañ koy jox pour exemple yeneen mbokk bërëm yi ñu bañ a def yenn yi parce que lu mu def du moom moo ko defloo guddi na en plus tam làmb dafa lu mu laaj te làmb ju ñor la kuy kuy faas waa kuy faas kuy doomu faas dala ñor parce que làmb ju ñor la aada nag duñ am lu ñu koy wax ndam lañ koy ñaanal. mais est-ce que guddeewul génn. waaw dafa xaw a guddee dafa xaw a tuuti rek war na am ci diggante mbër yi ak presse bi mbëri presse bi sol seen ay dàll war leen jël yaa ngi dégg seen open presse yi couvrir lépp ba dem mu mel ni ñaari yoon a dal presse bi est-ce que rafet na non rafetul ñun ñëpp xam nañ Ada jël ko moo gën a yomb si àdduna du daw benn journaliste amul esprit sax daw journaliste foo ko wax mu ne foo ko la ñëwal mais suñu borom moo moo ko dogalee ni tey mu ñëw si loxam ñaawlu nañ ko trop nag parce que rafetul mais loo gis làmb la moom amul intention pour génn fii mais tam mënul nekk ay nit ay xale yi nekk ci combat bi di sonn guddeeg bëccëg ba heure bi ñu ne ko defal li mu du ko def tollu foofu ñu moom nag mu ñu baalu presse bi yëpp presse yëpp ñu ngi koy baalu parce que du kenn ku ñu warul mun a baalu ñëpp la ñuy presse bu ñu baaloo baakat baalu nañ ñëpp parce que rafetul mais rafetul lañu mën a mais mënu mënuñu si dara amoon nañ intention dem Babacar jël leen leen dem wax ci këram mais xëy na fu ngeen ko bëggoon image yi mooy doxal seen site parce que mbooloo bi nekkoon fi ambiance lu fi gis si ambiance li ko booyee luñ sonne booy circulé léegi ñu masu coono booy sonn nañ trop def nañ lu ne mais Fass goxu làmb la canaliser mbër day jafe surtout aas aada aada àdduna la mun mënoo ko canaliser mënoo canaliser booy booy lu mu fi meloon fii ma mu ba aar mënu woon wax. Dimanche xam ngeen combat bi ngeen di bëri nu mu toll. non tolluñu fenn làmb la rek. billaahi wallaahi làmb la. dafa mbër encadrement la yore de. loolu cas aada la aada yeewu na si làmb loolu dara Babacar. côté doole xalaatoo ci moo ëppale leen. mooy doole Ada Fass bu leen ko tam incha allah demain bu simee ko doog ngeen xam ne mbër liggéey na non doole moom tiituma ko benn yoon di ko ñaanal ndam bi yàlla moom ndam yàlla ko yàlla may ndam si xool bi sedd ko te incha allah gëm naa dañuy am ndam waaw loolu lu ma gëm la gëm-gëm boobu laa am te moom laay doxee te moom laay yeewoo moom laay duggee si stade moom laa gëm te incha allah ah, dina am ndam di baalu waa journaliste rek maa ñu baalu ñëpp parce que bi ñu ko jëlee benn cas bi ñu ko xoolee benn dara làmb moo toll fii xëy na lii musul am si open press Ada Fass parce que yaa ngi koy soog a gis mais looy gën a dem dayoo bi gën a yokk mënoo canaliser booy yi mbooloo boo xam ne yàlla moo def bu ku dégg Ada Fass open press ñëpp dañuy ñëw ñuy sant ñëpp di remercier ñëpp mënuñu wax lépp jox rendez-vous bi estat maa ngi baalu ñëpp dimanche ñu daan ñëw invité ñoom Babacar fii ñoo def concert bu neex noonu loolu dañu koy def incha allah baalu nañ ñëpp ah, ñëpp ok kon mbokk yi ñu doon suivre ci Equivox TV gis ngeen tey open press Ada la ñu ñëwoon fii ci Fass terrain Santhie ah ñëwoon gis ngeen dugg si na Fass yëpp génn nañu mbooloo mi bëri na macha allah ñu waroon ko jël nag réaction après bi mu feccee def ay sadom ba pare mais malheureusement loolu mujjul mën a am ndax lan problème mu sécurité yaa ngi dégg ah, loolu moo tax loolu mujjul mën a am wax dëgg bi loolu amee tamit presse bi gis seen bopp parce tamit loolu neexul ci xol bu ñu sañoon day taxaw comme ni mu ñëwee fecc yooyu ñu jël ko mu wax ak ay mu wax ak sénégalais yi mais nag loolu amul après nag xëy na am na ci staffam ñoo xam ne bëggoon nañu ñu fekki ko këram mais vraiment gars yi d'accord wuñ ci lool parce que tamit mënuñu nangu tey mbër mu nga xam ne dañu ñëw soo ban presse paas ñëw daj ay coono ñëw ba fii war la jël nga def li nga war a def yëpp dugg si nga sadoo nga fecc nga def nga lépp après nga jaar noonu dem ñu ne problème sécurité la ah vraiment tamit loolu dafa doy waar mais nag liñ ci jàngate mooy encore une fois mbër yi nañu xam ne ñun ak ñoom o est des partenaires ay frères lañu en même temps ñooy maanaam dañuy ku ci ne da ngay jële ci sa morom di jox sa morom maanaam Ada Fass day jële si Babacar Babacar day jële ci Ada Fass ça veut loolu mooy moom mbër la yaa ngi dégg image day soxla ñu di ko wane te image am tey mën naam Babacar wane ko wala Bourgéwel wane ko wala Pël wane ko wala Lamine wala wala Fallou wala keneen ak keneen kon defe naa war nañu am compréhension boobu suñu biir ba nga xam ne yenn yi war na mën a bañ a am wax dëgg yàlla Modou nag ñu ngi koy gërëm di ko sant Modou Faye Modou Roubé daj na coono yu ne bëggoon sax man ma dem këram jël ko maa ku mel ni Modou Anta tamit boo ànd sa ay morom yaa ngi dégg ngeen bokkandoo ñëwandoo fi dajandoo fi ay coono mu demee nii yow boo rocce après ñu xëj la nga dem jël ko yow kese wala nangam ak nangam mën na indi problème te yooyu dañ koy maanaam gënaluñu quoi kon Modou tamit maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom vraiment ah sonn na trop trop ci Ada Fass nit tamit noonu la loolu mooy addina waaye wax dëgg yàlla daal encore une fois lii moom nekkul li gën mbër yi nañu xam ne làmb pour man la koy daan ca géew bële entraîné bokk na ci mën a bëre bokk na ci fulla ak fayda bokk na ci sérieux bokk na ci fit bokk na ci yooyu i faut mu daje si yow ba pare ay ñaan ak yooyu doog a egsi mais làmb kenn du ko gañe te bëree guñu ko ñun nag ñu ngi ñaan yàlla dimanche yàlla nañ fi yàlla bàyyi ñu fekkee ko le 24 Fallou Ndiaye moo tëgg Ada Fass Tapha Mbeur ñu bëre ci jàmm arène nationale nag fala la làmb jay amee ñu bëre que le meilleur gagne ñaari xale ngeen yéenay mayante xaalis bëre leen ko lépp am ci fair play ñu bëre si jàmm mu jeex si jàmm ku nekk ñibbi Sénégal jëm kanam ndax encore une fois réewum Sénégal réewum jàmm la réewum teraanga la réewum wax lu baax la réewum respect la réewum ay teggin la loolu moo fi amoon tey may nuyu képp ku nga xam ne yaa ngi suivre Babacar ci Equivox TV di baalu àq sama mbokku journaliste si ma fi dajaloon ñëpp tey parce que liggéey bi metti woon na mais géré nañ ko mais nag li ci am bi mu ci amee tamit am nañ fulaay dem seen yoon te tamit loolu mëneesu leen leen ci dara nag parce que nit ku ne ah nag sa sa fayda moom boo ko bàyyee ba mu dem après ëllëg leneen loo gis yow la kon gars yi kon dañuy joxante dig daje xam naa ci open press su Tapha Mbeur alxames lay doon ca Parcelles Assainies incha allahu rabbi